Euh, di wax ci kàddu euh, en tant que coordonnatrice nationale de la coalition Macky 2012 tey jii euh, déclaration wu femme Macky 2012 yi moom la ñuy def ci lu waral li nga xamante ni moo xew ci dëkk bi jigéenu Macky 2012 li nga xamante ni dañu feddali seen taxawaay ci lépp loo xamante ni moom moo waral jàmm ci réew mi loo xamante ni dañ koy waxtaanee ci biir ak ci biti moom moo taxawaat tey jii pour feddaliwaat taxawaayam ak nekkinam ci ci kanamu jàmm jooju nga xamante ni moom lañuy ut pour sunu dëkk pour sunu réew ci senegal jigéenu Macky 2012 yi nag ñi ngi gërëm di sant ñépp ñi nga xamante ni tey jii seeni kàddu jib nañu ngir jàmm dellusi ci réew mi imaamu nekk Euh, chef religieux yi moom mooy borom euh, borom euh, xam-xam yi ñi nga xamante ne ñooy nitu diine ñi imaam mu nekk ci société civile bi jigéen comme góor ñi ngi leen di gërëm di leen sant di leen sargal ndaxte ñoom ñëpp xam nañ ni ci jàmm la lépp xaj te suñu dëkk ci jàmm la war a mën a nekk bi loolu weesoo jigéenu Macky 2012 yi takk nañu ñoom ñëpp def say te duñu ci mooy ci dara te duñu ci dellu ci dara pour jàmm am ci dëkk bi ndax xam nañ ni jàmm ji nga xamante ne jotoon na fi am jàmm jooju dañu fas yéene mu law te du dakk kon jigéenu Macky 2012 yi takku nañu pour jàmm jooju am ci senegal ndax ci biir jàmm la lépp xaj ci biir jàmm lañu ñu mën a sunu liggéey ci biir jàmm la ñu xaj ak sunu njaboot li tax ñu def ko nag moom mooy dafa nekk mbir moo xamante ni li lëmbee dëkk bi mooy mbir moo xam ne ñaari nit la ci dafa doxoon ci diggante ñaari nit ay citoyen mu mujj ñu teg ko ci palaasu politique te amu fa woon place loolu moo tax ñu di ci àddunoonu loolu nag li ko firndeel mooy kàddu si nga xamante ni démb euh, ndaw su ndaw si génn na démb wax mooy firndeel ni ñaari citoyen ñoom ñoo séq wax jooju te pour jàmm am xam naa dañuy dellu di ñaan ki nga xamante ni moom lañu ñu tuumaal ah kàddu gi nga xamante ni ki mu joteel wax na ko mu jéem ko jëfe ndax mu mën a retirer plainte pour jàmm mën a am ci dëkk bi ci askanu Sénégal ci kaw loolu duñu mën a àggale nag te waxuñu ni jigéenu Macky 2012 yi ñu ngi feddali seen takku pour wéy ci yoon bi nga xamante ni moom mooy andi jàmm ci senegal waaye it di bëgg ci li nga xamante ni jël nañ ko ci ay kàddu ak ay matuwaay pour mën a jàppale askanu Sénégal waaye it pour mën a jàppale ndaw yi ci anam ci anam gu mu gën a yaatoo ci anam gu mu gën a gu mu gën a rafetee ba nga xamante ni du am xàjj ak seet ñi ngi ci ñaax ñi nga xamante ni ñoom ñoo yore loolu te di ñaan yàlla jàmm am ci Sénégal ndax bu jàmm amul du ñu mën a ñun jigéen ñi du ñu mën a liggéey li ñuy liggéey du ñu mën a nekk jàmm ak sunu njaboot ñu ngi leen di ci ñaax ci biir loolu yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant ci teewaay bi ak ci taxawaay bi